sëriñ mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane. boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke nekk ci Touba Darou minam ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28. gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye. ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew.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 fañ fanweer fan yi man sëkk si laa koy woore wenn mu bu laay nekk doole ju bari tëcc rek mbaa ma tëcc ba ngeen moom ana ngeen Fatou ma raw sax Fatou wee. Eh. man daal damay dem. déedéet waa Fatou yow foo jëm. na suñu kër. dem pour la. Euh, ndax nag. li ko waral lenn kese la. waaw depuis gi koor gi mi bëgg am ay su ay fan. waaw sama morom yëpp teralaate nañ seen i góor ak seen njëkke. joxe nañ sukkaru koor. ñi joxe ay jesneer ñi joxe ay takkaay man ma toog di xoolee. may laaj bàcc mu may jox deux cent mille trois cent cinquante mille laa ko laaj mu may jox deux cent mille deux cent mille lan la man a teral ci góor ak waaw dëgg dama la koy laaj waaw li nga wax ni xam nga d'accord naa ci yow teraanga nga bëgg a def rek pour bëgg say goro ak say njëkk waaye bu mu tax bu nga merul sa borom kër damay dem ndax du nekkul loo xam ne suñ borom bu ko bind ci téere du force aada la rek yow sa mën ngaa débrouiller loo jox say njëkk ak say goro boo ñu bëgg fa bàcc famille yoom ni mu yaatoo kenn ku nekk moo war laa jox gës neer war la caa tegal xaalis mun ma ko tey mun ma ko suba taxi laay jël ji nii yaa ngi 350 lu xew ko tegul su muy baax lu xew ah mais day dem de xam nga lan la déglu ma expliqué la koor gi ba mu commencé ba léegi sama monoom yëpp joxe suukaru koor man si maa joxe gul ma koy laaj 350 mille mu may jox 250 200 mille francs demal askan wi daa yaatu loolu 200 mille lan la ci góor ci askan wi da nga juum ndaat piye ndang-ndang suweer xawlu jàmm gi yooyu sa say say bokk fee 200 mille mën la daj xam nga looy def tasal demal sa yoon waaw demal ci boppam yow dëkk bi ni mu baree boobu mu xëy di wër ñu mel nii yow ni macha ni nga mel nii ngay dugg ci bàcc mi ah mu topp géwél ñu naan ko naa la gay naa ko naa gay naa ko lijjantiwul lii te ay bokkam ñëpp a sikk xam naa sama ñoom bàjjan boo leen dugg su wër su ko xat la tasar rek tas dong nga war a def nag. waaw yow mii de yaa wax dëgg. xam nga damay dem boo ko dégloo doo dem de. damay dem de. waaw ah, lu ngeen al oustaz mi la boo ko dégloo dem. aala aala aala lay indi daal lay waar eh. lankal fi nga jàpp jàpp. non man yéen a may bëgg a jaaxal de lu xew yéen man ah, de dafa jël ay bagages am bi dem. waaw ma daf ko ne ko lan la lu xew mu ne ma bàcc laa laaj suukaru koor joxu ma. ne laa bëgg a teral ay njëkkeem ki góoram daa doonte dëgg la sax ndax ndax teraanga moom day dëgëral sëy di ko rafetal. waaye itam du foosu ndax suñu borom bind ko fenn ci téere yi. jamono yeeku laaj jamono ji mooy jamono aar suukaru koor waaye kii tam xalaatam rafetlu moo ko man. Eh, déglu man dafa am laaj ma ko. yow euh, euh, Fatou man boobu déglu yow du ma la déglu li ma lay yëgal mooy nga téewaat sa sëy yaa ngi jooy suukaru kooru trois cent mille nit di jooy fukki dërëm yi mu suukare kafe kon suukaru koor buñ ko ci dugalee dañ ko rafetale waaye ñan ko war a jox ak ak anam bañ koy joxe ñun ñii ñoo sono suñ bopp ñoo dugal ci suñu bopp ak ci suñu xel yi dem ba jiital ba àdduna sëkkatallu ba toogaat ci suñu kaw ba tey nanga munta ñàkk nanga mun a ñàkk te dara loo ci toog baatin ba gis tal lay doon kon nag loolu bu tax bu mu la jaral mukk ngay tas sab sëy xam nga lu ma ci biir toog bul woy benn taxi loolu muñ muñatu ko suukaru koor ak ci sëy moo ëpp solo lépp ëpp doole lépp mëtut a tasub sëy mëtut sax mer te bu la ci sa jëkkër meree sa borom kër meree ba nga génn dem na la biir ni bis boo daje woon ak dara kenn mënu laa tey tàbbi sawar kon loolu wala yoon subi la mm-hmm. du gàttal nga toog ki sa néeg sëñ mm-hmm. yow nag moom déglu ma la loolu nag laa lay conseil mm-hmm. maa ngi ci biir bu dee yaa ngi wéyee sama nit kon da ngay toog ah day toog tey ba dem woo taxi wala bàyyi ko mu toog mu ah yow koy jëloo woon décision wax ji doo ko def